salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp ñi ñëw ak yéen ci xibaar yu mujj jëm ci sport bi dinañu jël nag daj dëpp gi muy kan Lionel Messi ginnaaw bi mu jógee Barcelone jëmuwaayam ñëpp a ngi wax nag Paris City wala waaye loole lépp dinañ ñëw ci yaatal gi kan kii di Serigne Ousmane Dia ñu gën ko xam ci Bombardier am na combat ginnaaw bi combat bi yàqoo woon amaat na nag beneen combat ak lan kii di Pep Guardiola ca Angleterre am na ñaari bomb yu mu wax muy lan ci Premier League ba kon nag léegi léegi ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi. ñëw ci yaatal gi waaye nag dañ koy dooree fële ca Italie ca Serie A ba kii di Meri demirale moom doomu Turki la Juve abal na ko Atalanta waaye abal gi mu ko ko abal nag dafa am ay sart yu mu ko tegal sart ya moo di lan bu at mi jeexee danga koy jënd 30 millions amul bañ farda force da nga koy jënd loole nag tax na doomu Turki bi dem na fële ca Atalanta Bergame moom mii di Meri demirale bu ñu jógee ci Meri demirale be du ñu sori Atalanta Bergame ndax seen gone gii di Christian Romero jaay nañ ko fële ca Tottenham signé na officiel na 57 millions d'euros la ko kii di Tottenham jëndee ci fàttali gone gi ku football am yaakaar ci moom la ndax Messi mu ngi ko doon joxoñ Barça sax ne leen gone gi jënd leen ko waaye nag dafa cher lool Serie A ba duñ ko génne ndax bu ñu sukkandikoo ci kan kii di Di Marzio moom kat journaliste bu mag la te xam transfert xam tamit nu transfert di doxee wax na ci mbiru kan kii di Romelu Lukaku nee na am na lu waa Chelsea di waaj. loole mooy lan nee na ngay indi nag benn enveloppe bu ngand wala ñaar yu mag a mag ba ca njëkk bii la muy cent cinq millions plus Sappacosta moom Sappacosta doomu fan la doomu Italie la kon xam na Italie nee na daal ñii di waa Chelsea nee na ñu waa Inter soo leen bëggee cent cinq ak Sappacosta ngeen jël su dee loolu gën leen am na cent quinze millions cash loolee bu ngeen ko bëggee ngeen jël ko man ma jënd kii di Romelu Lukaku loolee nag nañu yónni yàgg yàgg bawul da ñu des Angleterre ba léegi ndax dañuy wax ci ña nga xamante ni ña ngi leen di jënd nag kañ leen waxoon démb di Jack moo gën a seer ci taarix maanaam histoire lan Premier League bi moom lañ ko jëndee mu ngi toll ci cent millions livres sterling loolee mooy xaalisu Angleterre. ka ca topp mooy Paul Pogba 93 virgule 25 lañ ko jëndee woon ak kan ñetteelu place ba Romelu Lukaku ba muy jógee ca Everton jëm ca Manchester United moo ne ca ñetteelu place bi moom 90 millions la woon. kii di Harry Maguire moom it 80 millions lañ ko jëndee woon ak kan kii di Kai Havertz 75 virgule 8 millions lañ ko jëndee woon loole nag livre sterling la livre sterling mooy xaalisu Angleterre. ñoo ngi Angleterre ba léegi ñuy wax ci doomu euh, doomu Croatie bi di Kalten Tchar moom ma nga fan fële ca Marseille lay jonganteel waaye waa West Ham ñoo ko bëgg nee nañu nag teg nañu ci taabul ji lu toll 14 millions loolee nag nee nañu dina am bonus 3 millions waaye waa Marseille nee nañ ñoo lànk kandaare gone gi lañ cay laaj toll na ci 20 millions d'euros ñoom waa Marseille loolee la ñu wax. ñu wax ci kan kii di Pep Guardiola ñaari bomb yi ñu leen waxoon ne moom la lancé ci ngoon si bi muy def conférence de presse moom mii di kan Pep Guardiola. la mu xamle nag nee na mbiru Harry Kane nag bëgg nañ koo jënd lool waaye loolee nag pour mu am il faut Tottenham ubbil ñu bunt yi ngir waxtaan mën a am. journaliste nag saytu nañ ko laaj ko ci kan Lionel Messi nee na Messi moom mënatuñ koo jënd ndax ay programme am nañ ci sunuy mbir ñun ndax Messi munatuñ koo jënd waaye beneen bomb bi moo di lan nee na Bernardo Silva doon doomu portigal moom xam ngeen ko sax ca Monaco moom mi wax na kii di Pep Guardiola ne ko coach mu ne ko waaw mu ne ko man dama bëgg a soppi xar kanam dama bëgg a changer club loole nag kii di Pep Guardiola nee na Bernardo Silva xelam mi li ci nekk lenn képp la muy lan Liga Santander ba fa la bëgg a dem football fa club ba muy dem ak fam dul dem nag waxu ci dara waaye daal kii di Bernardo Silva dafa bëgg soppi xar kanam ci Liga Santander la bëgg a dem. ñu ñëw ak yéen ci daj dëpp gi daj dëpp gi mooy lan mbiru Lionel Messi bu ñu sukkandikoo ci source yu ñu am yëpp kii di euh, RMC Sport xam la ne ko ak kan Fabrizio Romano muy lan jubóo daanaka am na ci diggante kan baayu Messi di George Messi ak Paris. loole nag journal yi nee nañu bu amee nag joueur bi nga xamante ni moo ëpp lu mu def ay jaloore ci football dina dem ca Paris Saint-Germain moom mii di Lionel Messi la Pulga ma ngay wax moom mii nee na kii di Lionel Messi bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ñi ma leen wax noonu Fabrizio Romano ak kii di RMC Sport la muy lañ koy waajal nag mooy lan contrat wu ñetti at benn bi day doon ñaari at. ba ca topp mooy ñetteel bi bonus lay doon su ko neexee mu football ko bu ko neexee mu dem feneen moom mii di Lionel Messi lañ koy fay nag ñu ngi ko xayma ci 40 millions d'euros moom mii di Lionel Messi kon laa poule ga moom mii daanaka jubo am na ci diggante Paris ak moom kon nag bu demee dina fekki doomu ndeyam muy kan Neymar junior bi nga xam ne bi mu jógee Barça Messi bëggoon na mu dellu si fi loolu antuwul kon Messi bu demee Paris fekk ko fa la mu bëggoon dina ko am naa Messi bëggoon naa des ca Barcelone waaye loolee mënul nekk. jeexalee ci Serigne Ousmane Dia di Bombardier ginnaaw bi combat am yàqoo ci digganteem ak kan Pudzianowski moom mii di Serigne Ousmane Dia amaat na combat combat boobee nag la ko yàqoon lenn képp la dañoo dem bay waaj a bëre Bombardier am feebar ci biir mbiram bi moo tax combat bi amul woon waaye am na na combat kamu am kan la Jérôme Le Bannière moom doomu France la ci fàttali moom mi euh, champion la nag ci la muy def muy kick boxing moom ca super lourd la bokk moom mii di Jérôme Le Bannière moom nag mooy jàkkaarloog Serigne Ousmane Dia kon nag ñaanal loon ko loolee le 25 septembre 2021 la France la jongante ba di amee kon nag Serigne Ousmane Dia nañ ko ñaanal MMA bii mu nekk yàlla jàppale ko ci mu am ay ndam moom mii di Serigne Ousmane Dia. sama gars ñoo ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal guddik jàmm ak salaam yëf yi foofu la yem ñu jeexalee ko nag ak. messi bii ñu leen di may ci kanam tuuti ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm.